di ànd ak yenn ci soir d'info xaaj bu njëkk bi ci kàllaama Kocc laata xibaar yi ñu leen di faram-fàcceel ci kanam tuuti ñu am gan Claude Demba Diop lay wuyoo président Amis Amis di kuréel goo xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu euh, farine bi suma juumul Claude ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant bu waax di leen gërëm. Hmm, dañu dañu invitation ah, dañu xëyee xibaar goo xam ne xam naa du du neex njaayeen yi <laughs> surtout bu ñu xamee conséquences yi nga xam ni euh, farine bi mën na ko indi ci mburu mi. Mhm. alors da ngeen di wàññi production bi de moitié. Mhm. lu ko waral mais balaa ñuy expliquer yooyu yëpp sax may ni ma wax li intéressé njaayeen yi ban conséquence ban njeexital la nar a am ci mburu mi. waaw xanaa di jéggalu déjà mhm. parce que du loo xam ni namoon nañ ko mhm. fekkoon ni mbir mi jaaroon na yoon mhm. fekkoon ni état bi li nga xam ni moom lañu ñu woon ak moom ci waxtaan yi nga xam ni moom nañu laloon boobu ba léegi amaana duñ ci yegg li xew mooy euh, état daf ñu tënk parce que euh, bi ñu xaymaa ak ñoom lii saaku mburu war a jar tey mhm. dañu jàpp ni saaku bi tey mu ngi war a génne dix neuf mille cent quatre vingt treize mhm. maanaam ci gëstu ñuy def ak ñoom ba gis ni blé bi jar trois cent vingt cinq euros la tonne tey bu fekkee ni structure bi respecté nañ ko. Mhm. loolu mooy prix bi dix neuf mille cent quatre vingt treize. mais yéen a ngi jaayee ñaata jamono. seize mille six cent. mooy ba ngeen mujjee waxtaan ba ñu homologué prix boobu fa fa fa la des bougé wul. depuis janvier 2021. janvier 2021 voilà. mais ci diggante bi yokk am na. ci waaw lu bari. Mhm. c'est-à-dire que yokk am na état bi aussi am na lu mu def. Mhm. parce que diggante janvier ak léegi. Mhm. prix bi jóge na deux cent soixante dix euros tonne. blé yegg fi mu toll nii trois cent vingt cinq. jëm trois cent cinquante. waaye fi mu toll nii waxtaan bi. ci trois cent vingt cinq la yem donte gaal yi ñëw mhm. trois cent cinquante euro moom lay mujjee mhm. waaye dañu jàpp ni bu fekkee ni prix bi tey mi ngi trois cent vingt cinq euro tonne mhm. bi dindi TVA dindi droit de douane terewul saaku bi lii lay dikkee maanaam dix neuf mille cent quatre vingt treize bu paree nag ñu ñëw fi mu toll ni continuer leen di ko jaayee seize mille six cent ñu ne leen d'accord nañu waaye wax leen ñu différence bi am entre seize mille six cent ak dix neuf mille cent quatre vingt treize. fu ñu koy jëlee fu ñu koy jëlee. Mhm. parce que ñun yoon aussi mayuñu ñu jaay à perte. donc wax ci yëpp foofu la nekk. Mhm. di jaay perte donc. Euh... su ma la déggee. Mhm. nguur gi mi ngi leen tënk ci prix boo xam ni. Mhm. jàppalewul leen ci ngeen mën euh, continuer di euh, ñu koy woowee euh, def defar farine bi. Mhm. ak blé bi jóge bitim réew di ñëw. TVA tudd nga fekk yeneen i taxes dañ leen ko wàññi dañ leen ko teggil avant janvier wala bi mu yéegee ba demaat trois cent vingt cinq euro lan la nguur gi def pour mu woyof. non xam nga nguur gi dafa jóge janvier. Mm bi mbir mi jógee deux cent quarante dem deux cent soixante dix euros. Mhm. état bi dafa ñu woo. Mhm. ñu kaay leen ñu waxtaan. xam naa ni prix wu blé yokk na. Mhm. waaye bëgguma prix wu mburu yokk. bi ñu gëstoo ci biir structure prix wu pain. Euh, mburu euh, farine plutôt dañu jàpp ni bu ñu wàññee TVA bi. de six pour cent boobu blé mi ngi jaar deux cent soixante dix euros boobu mburu du du yokk. waaye diggante bi dafa am ay jéego. Mhm. ñan jéego. maanaam blé bi jóge na deux cent soixante dix dem deux cent quatre cinq jóge deux cent quatre vingt cinq dem trois cent. Ah, mhm. bi mu yeggee trois cent état bi dafa ni ah en septembre dindi naa la TVA dindi naa la droit de douane. Mhm. zéro. waaw kon fayatu leen ci TVA ak douane mais doyul. doyul léegi nag pris réel malgré ñu dindi ci TVA ak droit de douane. dix-neuf mille cent quatre-vingt-treize lay mhm, mhm. kooku comité des prix ñoo toog gëstu ko ba nangu ni mhm. lii mooy prix normal tey léegi état bi ci li mu doon xalaat mooy fan lay jaar pour jël différence bi mais diggante bi digg bi dafa yàgg waaw tous les jours ñu ni tey suba ëllëg ngoon ba ñun fi mu toll nii dañu toqi mënatu leen mënatuñu dem parce que saako bu nekk lu mu néew néew yaa ngi ci perte deux mille cinq cent francs par sac tey nag loi bi daf koy bañ parce que loi bi dafa ni munoo di jaay. aperte waaw yaa ngi ko doon wax. c'est interdit. yéen ñaata tonnes ngeen di ngeen di ngeen di defar par jour Sénégal marché bi di ko absorber. aux alentours de bu fekkee néew na ba néew. 1300 mhm. tonnes la. bu fekkee ni écoles yi ubbi nañoo. Mhm. yooyu consommation bi ñax dina daan ba 1450. 1450 jàpp 1500. donc chaque jour ngeen di produire lu na lu ñu toll ci ton ba mhm. pare di di perte à perte ngeen wax. perte c'est-à-dire que boo ko xamee 70 millions la. ñaata. 70 millions. bu ngeen ko xaymaa. cest à boo jëlee bu nekk boo jëlee différence bi am. Mhm. entre 16600. Mhm. ak 19193. bi mu waroon a jar. waaw nga multiplier ko par tonnage boobu. waaw toll na ci 70 millions par jour. 70 millions par jour yéen euh, meunier yi moom ngeen di ñàkk. fi mu toll nii. alors ban dogal ngeen jël. fi mu toll nii dañ ni comme yoon moo ñu tere. Mhm. ñu jaay par perte di perte. te xam nañ ni itam. lii du du jur jàmm. Mhm. parce que tëj rek lay mujjee. Mhm. parce que bu fekkee ni yow saako bu nekk yaa ngi ci per lu ci toll. Mhm. lii wóor ba wóor dootoo mën a dem. parce que fi mu toll nii déjà loof nañu. parce que euh, bateau blé yi nga xam ne ñun dañ koy jën dañ koy fay cash. bu fekkee ni nag yow yaa ngi. Euh, lebal di lebal di lebal ba mënatul dem. Hmm. foog nga téye sa loxo. yéen bateau blé yi tamit mënuñu leen jox ay quatre-vingt-dix jours après. ngeen yooyu yooyu amul. da ngay teew mu teew la bu fekkee da ngay dugal ay lekk degré lii mhm. il faut nga fay. da ngay fay da ngay fay mhm. bu fekkee ni nag yow. loolu yaa ngi ko tàmbalee avril ba léegi. di jaay di perte di mhm. jaay di perte ba léegi xam nga ni mënatoo dem. donc waxtu bi amatuñu pexe. moo tax ñu ni mënuñu itam xañ njaayeen ni seen i mburu mhm. moo tax ñu ni dañuy arrêté mardi mercredi jeudi vendredi ñu mosalaat tuuti euh, nit ñi semaine prochaine ñu tàmbaliwaat. mais am nañu yaakaar ni nguur gi. Mhm. dinañu réagir ci diggante bi mais bu ñu réagirul ba ni ngeen wax ngeen toog ñetti fan yoo xam ni dangeen di téye produit bi ñuy defaree mburu loolu. Mhm. njeexital li ni may wax mooy. Mhm. conséquence bi mburu du am ci fan yooyu. Ah. ku ci amul stock en tout cas boulangerie bu dencul stock. te est-ce que boulangerie yi dinañu am nañ capacité wu di jënd di di di stocké loo xam ne bu ngeen toogee defaru leen du am problème. non je pense bëriwuñu pour être honnête. Mhm. boulangerie yi fi mu toll ni ñoom seen bopp sax dañuy am ay jafe-jafe. Mhm. boulangerie yi honnêtement euh, dañuy jooytu toujours euh, situation bi ñu nekkee parce que am nañu quand même ay. rëq-rëq yoo xam ni ñu ngi koy dund. ndax réglementation bi bi ñu yaakaaroon ni dañ ko teg en place kenn mënu ko rek parce que am na loo xam ni moo ko gàllankoor format yi nga xam ni également doon nañ ko ñaan état bi état bi daf ci xelam daf ci tey. Mm-hmm. ba tax ni loolu boo ko boolee tey fi mu toll nii euh, seen demin itam des na. Mm-hmm. Euh, donc waxtaan bi moom mooy euh, du prix wu farine. mais jàpp nañ ni que bu fekkoon ni li nga xam ne ñoom ñu ngi koy yuutu am nañ ko. Hmm. maanaam même bu farine jaroon vingt et ñoom du seen problème. du seen problème de mais dafa mel ni kon secteur bi yëpp moo moo feebar jamono jii. waaw fi mu toll nii daal foo bës mu metti hmm. waaw foo bës mu metti waaw secteur bi vraiment metti na. alors pour dellu si ci mburu mi con concrètement mhm. yéen euh, farine bi. Euh, buñ leen dix-neuf mille cent quatre boobu ngay wax suñ leen ko yëwanalee ak yan moyen xëy na problème dootul am yéen nan ngeen xalaat comme pexe suggéré ko état ndax subvention encore lay doon dañuy dellu ci système subvention wala dañ leen di bàyyi ngeen yokk te bu ngeen yokkee tamit mburu mi yokku ban pexe ngeen xalaat buñ leen woon tey ne leen ñu waxtaan ban pexe ngeen di yóbbu non xam nga euh, soo ñëwee buñ ñu woowoon ñi waxtaan. Mhm. mën naa ni waxtaan bi am na bu pare. Mhm. parce que. am ngeen solution. ah non je veux dire euh, épuisé nañu plusieurs solutions. Mhm. parce que euh, damay fàttali ni bi ñu jógee ci conseil national de la consommation. Mmh. ministère du commerce ak ministère des finances dañu convoqué comité des prix. Mmh. comité des prix boobu moo indi ñu d' accord ñi prix normal bi mooy dix neuf mille cent quatre bi ñu yeggee foofu état bi dafa ni lan mooy pexe bi ñu ni leen pexe bi mooy bu fekkee ni buggu leen prix wu mburu yokk farine du tout mhm. da ngeen di jël différence bi entre dix-neuf mille six cent francs mhm. ak dix-neuf mille cent quatre-vingt-treize ngeen xool nu ñu koy defee crédit impôt mais ñoom jàpp nañ ni deux mille cinq cent et quelques crédits d'impôt boo ko multiplier par quantité mhm. yi état bi du ko attan ñu ni deuxième solution est-ce que mën nañu yokk prix bi jël genn wàll gi ba ca genn wàll gi ñu def ko commu ñu def ko crédit d'impôt maanaam xool naka lañu ko mën a yokkoo. Mhm. te mburu du yokk. parce que mhm. état bi problème am du est-ce que prix bii ñuy wax dix neuf mille quatre vingt normal na ou kooku moom féete na boor. problème bi mooy lan la ñuy def ba mburu du yokk. waaw bañ a yokk waaw ñoom ñoom seen problème foofu la. foofu a am conséquence ak impact. ci impact sur la consommation. loolu rek mooy seen souci maanaam moo tax boo yéeg déggee débat bi fii dañuy yaakaar ni ñun on est en porte-à-faux ak l'État. Mm. déedéet problème bi mooy état bi nangu nañu. ñun suñu prix baax na li ñu leen di wax. ñoom si seen bopp ñoo wax ni lii mooy prix bi. mooy li jaadu. li jaadu. Mm-hmm. li xel mun a nangu. Mm-hmm. donte sax ñun xam nañ ni. Mm. lii mooy li teew. mais ci fan yii di ñëw. lii dana néew parce que gaal yi nekkatuñu trois cent vingt cinq ñu ngi dem trois cent cinquante waaw mais ba léegi waxtaan bi fi nga xam ni foofu la nekk mooy trois cent vingt cinq donc état bi problème am mooy naka la ko mën a yokkoo te boulangerie daañu nangu ni prix bi farine bi yokku na te mburu du yokku loolu moo seen bopp hmm. waaye ñun mënuñu continuer aussi di xaar état di perte tous les jours quantité boobu donc loolu indi coow li ok léegi euh, yéen meunier yi yéen a ngi wax waxu arrêté wàññi déjà secteur bi yéen ñi ñaata ngeen meunier yi on est sept c'est-à-dire que tey boo calculer euh, meunier yi sept nañu am une capacité globale de production de 3500 tonnes à peu près. Mmh. 3000 bon disons 3350 tonnes moom la ñuy produire nañu mën a écraser par jour. Mm-hmm. mais demande bi. soo ko mm-hmm. calculer bu baax. elle se limite à entre 1300 et 1400 mhm. tonnes. Mhm. Ça veut dire que euh, en pourcentage tey bu fekkoon ni usines yi dañuy fonctionner en fonction de la demande on est à un taux de 66 pour cent de rendement de oui de looloo indi sax d'ailleurs encadrement wu état bi. Mhm. ba dugal un système de quota pour que marché bi bañ a perturber. maanaam usine bu nekk dañ ko jox benn quota. nekk yow. defaral lii nga yem pour que marché bi ba a perturber. donc actuellement. on est autour de 1300 à 1450 ce qui permet Sénégalais yi tey di génne autour de huit millions de baguettes par jour. 8 millions bagget mburu moom mooy. Euh, moom lay génne par jour moom mooy génne par mais mais léegi tamit ñaata nit ñuy xëy ci seen set yooyu minoterie yi. alors tey buñ ko xaymaa. Mhm. Euh, jàpp nañu ñu c'est autour de 1350 employés. Mmh. direct direct oui. maintenant emploi indirect yi euh, xayma nañ ko autour de quinze mille. indirect comme. bon c'est-à-dire toutes les personnes qui tournent autour, autour. du secteur maanaam. près de vingt mille donc ñoom ñoo ñoo nekk nii donc jamono ji ci ay jafe-jafe dans le cadre de dans, le travail. dans 20, le cadre vingt mille travailleurs sénégalais voilà. oui, quand même sénégalais. voilà Et je dis euh, aujourd'hui état bi dafa war a sàmm. loolu mhm. parce que. bu ñooñu tëjee lu ñuy mujjee mooy importation. Hmm. loolu rek mooy parce que nit ñi mënuñu ñàkk am farine. oui te nag importation du loolu mooy indi koom-koom. ci ci ci réew. donc euh, aujourd'hui je pense que état bi euh, jàpp na ni prix bi mooy cent mille neuf cent quatre problème bi mooy buggul farine yokk. ñun itam mënuñu continuer di jaay di perte donc fitna bi yëpp mhm. ci loolu la nekk mhm. mais ndax jotul tamit lii ñu jéem a seet ay pexe yoo xam ni xëy na lu ñuy béyee fii déjà blé mënuñu ko fi béy alors euh, dégg naa souvent question boobu xam mhm. nga blé euh, maanaam du loo xamee ni mun nañ ko bay fu ne parce que dafay laaj neige dafay laaj lu sedd ak yooyu donc suñu Euh, diwaan yii mm. am na tàngoor boo xam ni du tàngoor boo xam ni dina ko nangu donte nag ISRA ngi ci gëstu ak ay ONG au niveau de Fanaye oui pour def pour def xeet boo xam ni dina dina nangu fii alors loolu de tax ma ko doon laaj pour dem ci prox ndollu gi mhm. am nañ fi ay xeeti dugub amoon na ay temps sax pain riche waaye mboq mi lu tax duñu liggéey ci ñun tubaab yi xëy na ñoo defar seen blé di defoon mburu ci forme biñ ko xamee ak tàmm ko mais ñun ñu jéem a def ak li ñuy béy fii ay xeetu mburu yoo xam ni dinañ ko jëfandikoo te dina doon loo xam ni dinañ ci gis suñu bopp. xam nga. Euh, tàmm yéen seen usines yi continuer di écraser ak di kii mais ak produits yooyu des produits locaux. waaw mais xam nga tàmm laago la <laughs> loolu la ñuy wax dañ naan tàmm laago. mais ngeen ngeen yaraat ci. nit ñi communiquer ci mais mais xam nga ISRA soo xoolee bu baax wax dëgg yàlla. Mm. gëstu na ci lu yàgg. depuis mm. temps Senghor. ma ñuy wax palmi blé. Mm-hmm. mais dañu jàpp ni. Euh, bu fekkee ñun dañu bëgg mburu boo xamee ni euh, niru na liñ ko bëggee. Mm-hmm. incorporation wu céréales locales yi. Mm-hmm. gën ngaa bari quinze pour cent la sinon dootul niru mburu mm-hmm. te dootul neex a lekk. moo tax fi mu toll nii pexe amul c'est-à-dire mburu ak sénégal yi dafa mel ne dafa am lu xam ni. moo tax ma ni foog ñu liggéey fii peut-être question de communication d'éducation yu bëri la bu mburu dugub bi war nit ñi am nuñ koy def ree ba ba ni ngay wax jaxase ko waaw mais ah. quinze pour cent la mën toll c'est-à-dire que tey boo weesoo quinze en tout li nga xam ne jot nañ ko gis mm-hmm. te loo xam ne nit bu ko gisee dina ko nam mu jënd mm. parce que aussi bu nit di ñëw di jënd bagage day il faut que mu euh, maanaam méngoog li li mu bëgg waaw voilà bu fekkee nii Euh, lu muy seen du ci melestiku hmm. maanaam du ci gis boppam du ko jënd hmm. te euh, bi ñu defee présentation yu xool boo ko ci yokkee rek mburu mi day làpp walla mu tàcc hmm. te du day tax peut-être que la ca nit ñi di xaar. ak soos yooyu ci njaayeen. mais xam nga loolu la pour mën ko soos. <laughs> mais alors mais foofu laay waxee ni ngay wax ak ISRA ak euh, waa ITA defe naa institut de technologie alimentaire. la ñuy wax est-ce que ni ñuy wax yooyu ñu ci ajouté comme levure euh, wala yenn yi ba nga xam ni muy am une certaine consistance lu ci yooyu la war a liggéey ni ma la wax ba nga xam ni suñu produits locaux yi mais dinañ mën dem ci loolu xëy na nag dañ ko découvrir agul dañ ci gëstoogul bay daj ci mais war na mën a nekk bon euh, man dama jàpp ni bañ ko tàmbalee ndax def nañ ci moyen ak bon gëm gëm naa ni xam-xam bi war ak xam nga xam nga dafa am li nga xam ni li ma jàpp mooy li xel mën a nangu mm. mooy la nga xam ne moom la nit ñi tàmm ak li nga xam ne gis na ni mën na nekk. waaw parce que euh, bu fekkee da ngay jaay dara te du jar. Mm-hmm. amul njëriñ. Mm-hmm. Euh, ma jàpp ni bañ ko tàmbalee di wax ba léegi ci temps wu sengoor ñu ko fekkee tey bareetul. Mm. Euh, ñu ni fii la ñu mën a yem jàpp naa ni seen xel foofu la mën a yem ci taux d'incorporation mm. maintenant. wëlbati nit ñi ba nga xamee ni ñuy def comme yenn dëkk yi nga xam ni ay sombeek laax yooyu mhm. la lekk da yomb parce que euh, tàmm nañ ko bu pare mhm. waaw te euh, dama jàpp ni li ñu fi tubaab yi bàyyil mhm. mooy suñu nattu mooy bëgg mburu euh, ku yorul mburu si suba ndekki defoo ci sa ndambe wala soosoo ko ci meew mi day daal di jafe. Hmm. ngoon si itam jàpp nañu. boo deful soos soos. soos du dem. <laughs> ba mu ànd ak waaw waaw bu dee nag yenn réew yi soo xoolee bu baax ñoom euh, maanaam li ñuy consommer ci ci mburu bariwul. Hmm. même Côte d'Ivoire bi donte. Euh, ñoo bokk ñi ñoo xam ne ñoo ñu colonisé ñoom li ñuy consommé ñun ci mburu ñoom duñ ko consommé c'est vrai waaw ñoom ñu ngi ci euh, aloko yeeg euh, nu mu tuddati ñoom suñu ñaam yeeg yooyu rek mais c'est c'est ça moo tax ma ni vraiment waroon nañ ci waroon nañ ci gën a fag fagaru mhm. liggéey ci loo xam ne d'autant plus que xëy na du pour yàq seen affaire mais farine bi ñu bëri ak mburu mi xam nañ ni jabet gi lay day day yokk jabet gi rek wopp yi la gën a yokk autre chose li may wax ñu jéem a favoriser nos céréales locales encore une fois pour jéem ci pour jéem ci génne loo xam ni askan wi dina ci gis seen bopp ñiy béy fii tamit gën a mën a dundee seen seen seen ñaq donc autorités yi bu ñu leen di ñaax loolu war na cee bokk léegi xëy na tamit boulanger yi ñu waxaale tuuti ñoom donte yéen du seen euh, métier mais li ngay wax ay métier connexe la un peu tout le temps noo gisee ni la ñu war a def pour tout le temps coow yi nga xam ni ak problème yi nga xam ni ñoom ñi ngi koy jànkonteel secteur mburu mi boulangerie bi foofu tamit ñu régler ko une bonne fois pour tout bu ñu leen woowee yéen et on le souhaite très rapidement seen problème mën ñee yéen état régler ko mais boulanger yi aussi comme c'est un secteur euh, connexe lan ngeen lan nga ci xalaat ci pexe. bon xam nga boulanger yi euh, jàpp naa ni secteur bi bi mu pucc xoo ba mu mhm. amee pucc xoo ba jaxasoo dëgg. Mhm. Euh, yàlla may mayoon nañu ñu organiser ay assises nationales. Hmm. assises nationales yooyu en fin décembre 2017. Hmm. ñoo juróon euh, ay waxtaan waxtaan yu xóot euh, waxtaan yooyu sax ñoo indi woon ñu dugal prix wu farine. Hmm. mu toll. waxtaan yooyu itam moo gisoon ni góom bi gën a rëy ci wàllu boulangerie bi mooy distribution. parce dañu jàppoon ni. bu ñu waxtaanee ba gis li nga xam ni war nañ ko génnee ci réglementation maanaam xool distance entre boulangerie yi xool mburu mi naka lañ ko war a mhm. jaayee fan lañ ko war a jaayee mhm. naka la war a selle mhm. yooyu yëpp dañ demoon ba tënk ko 2019 jot ñu dekkal waxtaan bi ba génne benn décret boo xam ni mooy organiser la distribution. Mhm. loolu yëpp bi loolu amee ba ñu war a dem ci phase application te la am ay téq-téq mhm. te boulanger yi dañuy wax tey bu fekkoon ni réglementation bi ni ñu ko xalaate woon te amuñu ci téq-téq ak consommateurs yi kon waxtu bi même bu saaku jaroon de vingt et mille ñoom du leen wàññi dara parce jafe-jafe yu ñu am yëpp. Mhm. mi ngi ci application réglementation euh, euh, réglementation bi waaw te réglementation bi nag dafa am xëccoo. parce que mhm. par exemple su ma jëlee benn point précis rek. Mhm. ci wàllu distribution. parce que tey état bi dafa jàpp ni mburu dafa am fu ko war a jaayee. maanaam bu dul ci boulangerie bi mu nekk ci ay point de vente. organiser point de vente yooyu pour le moment. disponible totalement am na ay endroit yoo xam ne new fa association des consommateurs ni tey duñu nangu ñuy appliquer réglementation boobu parce que dafa am ay zones yoo xam ni boobu ba léegi amul guñu kiosque donc kenn du appliquer réglementation bi tant que loolu rek oui mesure d'accompagnement yi voilà donc fi mu toll nii jaxasoo bi yëpp foofu la nekk mm. ñaareel ba mooy ci format yi parce que boulanger yi dañu jàppoon ci benn waxtu ni euh, mayoon nañu ñu jaay mburu cent franc mburu cent cinquante ak mburu deux cent mais état bi dafa njort ni bu fekkee ni may nañu ñu jaaye mburu deux cent fu ne dafay mel ne dañu yokk mburu hmm. moo tax xelam tey ci daal ni moom nañu jaay mburu cent franc cent cinquante fu lu neex ci biir Sénégal hmm. mais deux cent franc yi na yem ci boutique te xam ni format boobu du format prioritaire. te boulanger yi wóor na leen wóoru yàlla ñoom fi mu toll nii ñu leen mayoon ñu appliquer mesure boobu ñàkk na ni dootuñu am jafe-jafe. Mm. parce que daañu mun écouler. seen produit am ay marge yu ñu am. Mm. Euh, wax ji daal mën naan mën na am dafa dafa dafa jafe daal. Mhm. kon ñu tàggoon ndax waxtu wi dab nañu message bi ngay euh, lancé peut-être ñi nga xam ni mën nañ euh, décanter situation bi en trent secondes. waaw man nag je pense que di jégalu déjà ci ci ci ci askan bi. Mhm. coono bi ñi nga xam ni moom lañ teg ak fitna bi. Mhm. di ñaan nag chef de l'État. mu dugg ci mbir mi. parce que ministère de finances am na lu mu ci xalaat. ministère du commerce am na lu mu ci xalaat. maintenant application moo mhm. maa ngi sant di leen gërëm. ñu lay gërëm di la sant Claude Demba Diop moom moo doon euh, sunu gan indi xibaar goo xam ni bu bu dee dafa mujj euh, antu euh, du neex njaayeen yi ak xam naa yenn mbokk njóobeenam yi ñu leen di gërëm di leen sant léegi léegi ñu tënkal leen xibaar yi ci kattanu borom bi dellu siwaat ci kanam ci ñaareeli pàcc bi ci nasaraan lay doon.